leen ko waxee rek euh, gis ngeen trajet bi nga xamante ni def nañu ko lépp nag euh, mi ngi am ci biir Sénégal soriwul Dakar dara ndax boo génnee Tëngéej euh, jëm fi nga xamante ni mooy Njar ci Daaru Njar kër Serigne Mor ja mu nekk nag bërëb boo xamante ni jàpp nañu ne émission kër gi yemul rek ci ñi nga xamante ni ñooy nekk ci kër gi waaye nag def ci am ñoo xamante ni tàggalikoo nañu ak seen xel. ñooñu itam bokk ci ñun am solo lool ci ñun ñu am fuñ leen teg waaye nag am na ci ñoo xamante nii fii ci Daaru Njar euh, rawatina ki ñu fi fekk di euh, sëriñ Cheikh Dia yor euh, ndono gi mën moom la ñu mën a wax sax xilaafa gi wuutu fii ñi nga xamante ni ñooy ay waajuram wuutu bu rafet yor itam ñi nga xamante ni ñooy malaat mental yi maanaam ñi tàkkalikoo ak seen xel mu doy waar lool waaye nag comme yegsi nañu ci këram fii nga xamante ni mooy daara ji bëgg nañu xam téléspectateurs yi seetaan 2STV lan moo fi nekk naka la ñuy jaar ba jàppale leen waaye itam naka la ñuy def itam ba bàyyi xel ñu mel nii nga xamante ni seen lépp dañu ko jël jagleel ko doomu aadama rawatina doomu aadama bi tàggali ko xelam te li muy def yéeme lool euh, Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi tax la barakatuhu yéen mbokk yi noo ngi leen di nuyu lu bari noo ngi leen di santit bu baax. ci seen ñëw gi ngeen ñëw ci barab bii di daaru njar nekk barab boo xamante ni sëriñ Tuubaa moo ko joxul ndigal sëriñ Mor Dia mu sanc barab bii sëriñ Mor Dia yàlla may ko baatin boo xamante ni dafa am wàll woo xamante ni yàlla la ko caa dimbali woon ndimbal moo xam ni ku fi mu a ñëw jaaxle ci yooyu wàll dana la ci dimbali ak yeneen wàll sëriñ Mor Dia mi ngi sanc fi 1902 ba 1960 la soog a wàccub liggéey yàlla dogal na li nga xamante ni moom la fi maam yi bàyyi woon ñu daan ko gëstu ci ay wàll yu bari sunu waajur yit yar na ci loolu di sëriñ du Dia ndax sëriñ Mor Dia bi nga xamante ni yàlla dogal na muy faj mboolem ñu am wéradi xel ku mës a la lu mënti doon it du tee mu ñëw mu ñaala ci woo wàll waaye nag wàllu wéradi xel yàlla da ko ci mayan may goo xam te ne sa jano xam la la dal xam la koy faj daal lay dimbali ca loola ba loola faju baatin boobee it bi mu fi yàlla dogalee mu fi ba ma bàyyi ko ba dafa bàyyi ko it mu jox ko sëriñ Momadou Dia sëriñ Momadou Dia it képp ku ma sa feebar ak feebar bu mënti doon soo dikkee bu dee bu ko seetee muy wàllu woo xamante ne wàllu wër di xel la mu ñaanal ca la yàlla faj ko wane ne wàllu mu mënti doon boo soxlaa it soo ñëwee ci loola mu jàppale mu dimbali la ca loola ba loola faju ba dañ daan jóge fu nekk ci réew mu nekk dañ fa daan jóge di ñëw ci moom bi yàlla dogalee moom it mi nga xam mi bëgg a wàcc bu liggéey la ma woo man seex ni ma léegi li ma bëgg lii nga xamante ni day baatin boo xamante ni maa ngi ko jëloon ci sa maam yoon wi nga xamante ne moo koy maye teg ma ca yoon woowee yoon woowee te laa tegu ba bésub tey bii ba fi mu nekk doomu aadama yu bare ngi ni yoo xam ne fu ne lañuy bàyyi ko di fi ñëw ñii wér nañu ñibbi ñii dem nañu ba tane nañu ba delluwaat seeni kër di jël si ay garab ñii ñu ngi dem ba yàlla defal na leen ak wér ba ba ñoom seen ba ba ñoom ñoo ngi ci seenub liggéey ñii yàlla defal leen ak taneet ba ñu ci biir kër gi am na ci ñoo xam ne dañ leen fii door a andi biñ leen fi andee it noonu it noo ngi ak ñoom di leen jàppaleen di leen dimbali ba nga yàlla mën la ne defal leen jàmm ndax eh, nekk na ñoo xamante ne la leen tax a ñëw seeni bokk dañuy dem ba jaaxle mënatuñu leen a yor ci seeni kër ñuy yor ay ngannaay di di yàq di di fa yàq di yor ay ngànnaay di di di fa dóore bay ñoom seeni waajur dañu mujj am jaaxle jaaxle gu toll ne attan koo génn génn kooka pour mu dem yoonam am nañu bari ñoo xam te ni dañ leen di for seeni waajur génn leen ngir ñàkk ne ma te nekk seeni kër ñu buñ leen for andi leen fii ci noonu nu it ñu xam ne lii yàlla moo nu ko jagleel nu téye la ak noom ak fa mën a bàyyi ko ba li war ci nun nu war koo def sa diggante ak yow loolee nag dem na ba fi mu nekk diis na ci nun ndax li ko diisal mooy bala place yi nga xam ni mooy yi ñu war a mën a dëkkee yooyu manqué na li nga xamante ni mooy wàllu dund bi it jamono bi ak jamono bi fi mu toll loolu it métti na li nga xam te ni it mooy wàllu ci gën a yit am solo mooy dëkkuwaay ak it euh, sibur yi nga xamante ni dafay am nawet te sibur yooyu saa bu amee doo gis seen kenn kenn ku ci siburu yaa yóbbu hôpital bu dee war naa si yaa koy jënd bu dee leneen lu mën doon yaa koy topp tool boole ko ak di ko dundal boole ko garab yaa ngi koy defal ndax doo gis mel ne mbokkam loolu lépp it nekk loo xam ne danga koy te li waral ni def loolu lépp it danoo fekkoon suñu maam di ko def fekkoon suñuy bàyyi di ko def moo waral ni di ko def am na solo yaa ngi wax lu am solo ci ñi nga xamante ni rek ñooy malade yi ni ñu fi nekkee euh, mu mel ni que seeni mbokk léeg dañ leen fiy fàtte parce que boo yoree koo xamante ni dafa taxali ko xelam nga teg ko fenn daw dem est-ce que jàpp nga ne loolu yenu na maanaam waa loolu li koy waral dafa ci am ñoo xam ni dañoo dem ba sonn ba jeexal ci àll bi ci ñeneen ñoo xam ne dañ leen di nax ci li demee noonu ba ba ñoom du ñu amati benn pexe moo xam te ni lu dul bàyyi leen rek ñu ñu génn dem moo leen di may jàmm ndax am na ci ñoo xam te ni dañuy dañuy dégg nit dem fa kooka kooka lam leen di wax lu bokk ak la ñuy man ñoom it ñu xam ñu dem di wër di dem di wër di dem ba ba jeexal takk amatuñu fenn fuñ jëm ñu dégg barab bi ah yërmande ji fi nekk ak taxawaay bi fi nekk ñu añ leen te nun mën na bàyyi doomu adama ndax doomu adama yàlla moo ko màggal moo waral buñ dëkkee it ñu di leen saytu la ci mën ne du ko def ngir yàlla waaye nag taxul nit nu am ci nan moo xam te ne day bàyyi ko fenn ci ci lenn ci loo xam te ne dina leen war a mën a na nga yor sa nit mu feebar nga dem teg ko ci bërëb xam ne mi ngi ci bërëb ba pare doo ko fa fekkee ceeb doo ko fa fekkee yére du garab ni dara nga teg ko fa ci nit rek fàtte ko ci noonu est-ce que loolu jaadu na. kooku jaaduwul ndax doomu adama bi ko yàlla sakkee wàcce ko ci yow dafa am lu mu la sant lam la sant moo di kii ma wàcce ci yow wërsëgam. man maanaam kartanam léppam yaa koy man yaa koy mën a yaa koy mën a saytu ci moom yaa ko mën a taxaw ci moom ba keroog muy mënal boppam bis bu demee ba mënal boppam ba mën a liggéey nag su boobaa war-war yi ya nga xamante ne moom la warloo si diggante yow mi waajur nga def ko waaye am na ñoo xamante ni bu seen njaboot xisee toll foofu dañ ne daal bëgg a génn njaboot ga pour ñoom ñu mën a féex am jàmm. wax wàcc ñooñu ñuy nekk di taxawal ci àll bi wala xadd karam naa bani adama lu yàlla bind lu nekk doomu adama moo ko ci gënal kon soo sàgganee doomu adama bi bu ëllëgee yàlla dina la teg fitna soo dimbalee doomu adama bi ci ca fa mu toll nag su ëllëgee yàlla dina la dimbali ci ci bis boo telee ci sa bopp mu dimbali